cité na géré loolu ñaas ñaas ñu xaar tuuti booy get ndar ak système ndeysaan ñoom ñaar noppalu nañu ba dellu siwaat ñoom ñaar système ak booy get ndar ñoom ñaar ñi ngi leewtoo ñoom ñaar ñi ngi leewtoo ñoom ñaar ngi leewtoo Boy Guet Ndar am nga ñaari avertissement waaye Tapha Tine a ngi noonu moom it waaw waaw ci bokk de yéen ñaar ñooñu bu ngeen mënta ngi taxaw baaba ubbi ko ndax ñu dégg ko système Ousin ubbi ko système booy get ñoom ñaar waa Balla Gaye ak Ama bu nu bëriwul tafaati na ngi taxaw booy get ndar booy booy get ndar ak bu système bi songul système dóor na waaye dalul xam naa ne ñoom ñaar bu ci kenn mënoon a bëre dóor boobu dal na de. dóor ba dal na dóor ba dal na dóor ba dal na dóor ba dal na dóor ba dal na gii sa ngan ña ngay mbéj ña ngay mbéj ña ngay mbéj ña ngay ña ngay mbéj dina am ku daanu dina am ku daanu dina am ku daanu. lay lay la eh yéen waa mbëru eh Ouzin ubbi ma ñu dégg ma waa ubbi ko Boy Guendar Système plaqué na ko Boy Guendar Boy Guendar Boy Guendar Boy Guendar Boy Guendar ak Boy Guendar wër na ko Boy Guendar Système <laughs> ay waay xoolal bii combat waay ma ngi koy jëri toog na daaneel na ko wa yaay ah! na ci wetam waaw ndeysaan Balla Gaye ngi noonu ak Eumeu Sène booy gën liggéey ci jour. waaw loolu tax muy jooy. eh Ousseynou Ndoye ubbil ma ma wax ak gars yi. waa ndeysaan. Ah.